asalaamaaleykum waa Sénégal euh, man la El Ka maa leen di nuyu bu baax aw ma habitude def ay vidéo mais tey dama am benn mbir moo tax di def vidéo bi muy sunu mbokk yi nga xamante ni ñooy sapeur pompier yi ak euh, waa croix rouge yi nga xamante ni ñoo doon euh, denc way nopplu jooju nga xamante ni dañoo wax ne ci tawat yi la noppaloo ñu koy denc ay doomu aadama génn di leen sànni ay xeer. toj seen i pare oto ba di leen gaañ mu nekk lu ma ñaawlu lool moo tax ma génn di def vidéo bi euh, bëgg a sensibiliser tuuti rek euh, askanu Sénégal ndax ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu te dañoo waxoon Sénégal mooy dëkku teraanga sa mbokk jullit bu wàcc liggéey ñu indi ko di ko denc donte xamuloo ko war nga mën a bàyyi ñu denc ko waaye waruloo jël ay xeer di ko sànni lu mel nii sapeur pompier yi nga xamanteni ñom pour ñun rek ñoo tax ñu jog ak euh, ñi nga xamanteni ñoy wa croix rouge nga xamanteni ñom ay ay bénévole lañu ñoo xamanteni ni ah dañuy joxe seen bakkan ngir sauver doom aadama yi ñu ñu tuddee ay sécuriste ma ñaawlu ko trop am lu ma métti trop parce que man fi ma nekk ci Gabon man maa ngi nii Gabon je suis à Libreville mais yi kenn xalaatu ko fii fi mooy wax ak yow nii ku xam Gabon maa ngi fii ci benn rond-point bu ñuy wax. Euh, Carrefour Antraco Carrefour Antraco foofu laa nekk nii ñu ci Angondié mais si xolé dëkk bi rek nga xol fi mu pratiquement population bi kenn kuy taxawal du dox lu fayda té dans dans une heure de temps parce que on est presque à 16 heures 18 heures pile ñëpp dañuy dugg ci kër yi kenn dootul génn ba 6 heures du matin donc.

ñu xam ne ñooy avenir suba nañu bàyyi yi ñuy def nañu bàyyi yi ñuy def coronavirus feebar la comme feebar yëpp ni ñuy faje feebar yëpp loolu nañ koy faje nit ñaa ngi dee te amuñu coronavirus pourquoi bu nit bu ñu leen di dafa am coronavirus ñu koy daw mel ni kuy daw ku ñuy tooñ nañu moytu loolu nañu moytu di ko loolu yooyu amul njariñ nañu dellu discipline ñun sénégalais yi surtout ñun ndaw ñi nañ ma bal àq nag parce que waxuma waxuma yedduma kenn parce que man xëy na ni ma war a mel meluma ko mais nag eh, Sénégal day sama réew ma yaakaar ne man dama bokk ci réew mi ba tax na am na loo xam ne bu ma ko gisee bu ma méttee dina ko wax ku ma ku si mën a jàppale itam ku si yàlla dimbali nga dégg ko xam fi may waxee nga dégg ko xayrun ku ko déggul itam xayrun te moo eh, ma ma am benn baat ba rek mooy mujjee muy que ni. Euh, gis nga tawat gi dal kooku ñu doon denc jombul kenn kuy dund ci àdduna dara jomb kon nañuy moytandiku yenn affaire halat xalaat nanyi nañuy xalaat ëllëg sénégal nañu dellu amaat yar gis nga boo génnee si réewu afrique yi da ngay xam ni sénégal dañu laissé aller bi dafa bari trop man nag euh, li may wax mooy le ministre de l' intérieur monsieur ali nguy ndiaye na jël ay responsabilités am si yu mel nii nañu nañu ordonné ay ñu seet ñen ñoo doon def jëf ju ñaaw ji ñu jël leen teg ay daan te bu ëllëgee buñ ni bu leen kenn ni ñaanal naa leen nañ leen baal wala nañ leen def nangam parce que acte de indiscipline rek la dañu respecté wul suñu force de l'ordre yi respecté wuñu sunu sunu état yi loolu moo tax ñuy def yu ñàkk fayda yi ñuy def nii loolu moo tax nag man may def vidéo bi ngir ñaan ah ñu gën a discipliné nañu gën a discipliné nañu gën a joxante cër nañu gën a joxante respect waaw man la Elaj Ka Gabon Libreville Moi, je suis de Thiès. Voilà. Puis, je suis actuellement à, Libreville. Je suis au Carrefour Antraco. Donc, vidéo bi mi ngi noonu je ko jot seulement pour sensibilisation c'est pour rien du tout pour sensibilisation seulement merci beaucoup à bientôt